baax seen yéen xam fa ngeen bëgg mu jëm fa. Mhm. na ko fa yàlla yóbbu. yëkkatil micro bi tuuti rek di ñaan jàmm. Mhm. di ñaan salaam. di ñaanal waa réew mépp ñoom jàmm. di ñaanal nekk ci immigré bala ma leen di nuyu. Mhm. leen di ñaanal jàmm këyit ndax jàmm ci la lépp xaj. bu ñaanee jàmm ci réew mi ba pare. ñaanal immigré ya. di ñaan bàyyi wax ju bari. ndax wax ju bari day yàq. te tey lii sax destin la. ndax sama xarit bi xamuma woon sax naa fekk lii. dëgg la moom délégué. <laughs> mais booba dafa fekk ma penda sekk papay waali sekk woo ma ma ne ko waaw mu nekk ci Europe maak Ousmane barki démb gise nan mhm. ñoo toog ñoo mhm. jugandoo kër waali mhm. ma pend ne ma loolu nga dégg loolu lu tax dégg gisuma ci sa wax ma ne ko ah bu jotee rek day daal di yomb mais xaw moon sax ndax danaa fi fekk lii. Hmm. ba fekk fi seen biir. dëgg la maa ngi leen di baal di leen baal. jërëjëf di leen ñaanal jàmm. très bien tey noo jàngatee wax ji yow xam nga bu baax a baax Wally sekk Eumeu Thiou aussi mënuñu wax Eumeu Thiou vraiment ko xam dëgg te waxuñu taxawaay bi nga xam man maa tuddee Eumeu Thiou xanaa loolu xanaa mosoo ko dégg. Ah. jour ba mu defee contrat ak waa euh, waa Thione ba mu jógee ca contrat ba man la ñëw ànd ak Eumeudy Badiane sama kër keroog danoo xaañ sama papa. Hmm. keroog danoo xaañ sama papa xam nga lu tax xam nga booba ñi nga dëkk Pikine te ñoom ñëpp a ngi fi sama ñoom jàpp soxna yaa ngi fi ñëpp a ngi fi macha allah ndax booba danoo def contrat ba pare war a war a solu pour defal ko benn kilip ci la saase Thione Seck. si saase. si suba si. Hmm, ci ji moo nekk nii dimanche ji danoo war a jouer clip. Hmm. man maa man maay Fallou Seck sañse maay joxe sañse yi booba fii ci dëkk bi Sénégal. ak sama xarit Xaadim Thiam ak gars yi. Mhm. ñun li tax ñu tuddee leen groupe Thiou. man avant muy xam Thione Seck man maa ko Thione ànd nañ 81. maak Thione Seck ànd nañ 81 mhm. ba tey. d' accord kon de xanaa ànd naa ak moom. Mhm, dëgg la dëgg la man ba may xam Ameth Thiou. Hmm? ba may xam Ameth Thiou. nekkul nekkul ci Ramadaan. mu nekk sama rakk nekk sama xarit. Mm-hmm. tey soxnaam sii mu takk sama kër la ko takk ki ma mel ñaari doom nii. Mm-hmm. mami soppe Njaay sama kër laa ko takke sama kër la ko takk ci Torino ñëpp xam nañ ko te ñëpp nga fa. Mm-hmm. bu daan ñëw Torino ci sama kër lay nekk def fa un ma nekk ak moom ci njekk ak taraa nga lekk naan. ci lépp buy ñibbi ma yëkkati sama dem naa ban ñu ne ma Fallou sekk day yelwaan ndax am Ahmed mii Ahmed Thiou. Mm. te dama bàyyi sama liggéey man dama am liggéey bu fi damay liggéey commune ba depuis 32 ans man am naa immigré 32 ans. Thione sekk bu ñëwee itali man maa koy dawalal jaaga toog nii dégg nga li ma la mhm. toog nii léeg-léeg Wally man maay dawal. su ma ko bëggee jox sama rakk ji ma bokkal ndey ak baay da damay jàpp Thione sekk li ba ba bii mu mujjee. Mhm. dafa jàpp sama loxo. ne ma du bu ma jox kenn mu dawalal ma yow yaa may dawalal ba ba may ñibbi te boobu ba léegi maa ngi jàpp mhm. du dëgg man ba may ànd ak Waly Seck oto amul dara amul xam lu daan def mhm. di dox ci par yi may ànd ak moom dara amul ñuy réer sax ndax ma war ko yóbbu te am na booba ñi nekk ci groupe bi ñi nga xam ne tey mhm. ñépp nga fa tey bu ma daan ànd ak sax waali léeg-léeg dañu daan wax ah waa sëñ Fallou tey foo jëm ndax boobu ñoom nu Paris te man man damaa miin Paris 32 ans laa la wax. Mhm. man dama fay dawal oto di dawal Europe gépp oto. d'accord di dem ci fu ma neex te Waly Seck mës ta tëgg fenn ci àdduna ci Europe bu mu geesu gisuma te man mën naa animé su ma dugalee sama lii almeno 5000 personnes seetaan ma. Hmm. kon xanaa mën naa dara. daa tax ma wax. kii la jàngal fecc man ci ñu leen jàng bu ñu daan répété sama kër la ñuy répété sama kër a ngi nii Pikine Ahmed Thiou Amady Badiane Papa Ndiaye Thiou ndax Raza Abdou Ndiaye ñooy magu Papa man may ànd ak Abdou Ndiaye di ànd ak Xaadim Thiam ñu leen di joxe ay yére ban ñuy dem ay ravin ba tey jii ñu naan leen Thiou mm. ma ne la sama këram la sama soxna soxnaam fa la jóge man coon sekk jóge na Italie sax man Fallou Seck ma doon barboné xam nga luy barboné. amatuma kër amatuma dara. nga nekk SDF man ñëpp ko xam ñi fa ñëpp a ngi nii di ko dégg. Hmm. di fanaan ci oto. ndax Italie dafa metti ndax sama jour bi spectacle bi amee la sama document yëpp réer. Hmm. amatuma benn dë amatuma kat comme amatuma dara ci ci Italie te il faut pour nga amaat loolu il faut nga utaat. document yi ni mu waree te bu ne mën naa ak 6 mois may fanaan ci ay oto ñu may caméra di ko indi Sénégal di ko wane. Mhm. te samay mbokk ko doon def. te loolu bëgg Papa Thione Seck moo tax. bëgg Papa ma laax maa koy dawalal oto. Mhm. xanaa kay jaagaa ngi nii di ma dégg. te bu ma amee lu ma naqari man damay dem ba ca jaaga wax ko. Mhm. bu may tàggu xam lu may wax. kee ngaa dem seetiwaat ko rek bu ma demee tamit damay toog wàll bu est la ma ko bëggoon wax sax naa ko wax dama koy bàyyi ndax dama koy yërëm. ndax xale la mhm. te li nekk ci bopp bi te xel du mat mhm. amet ci moomu sama rakk la sama xarit la xam nga ne ku la tuddee ku nga xam ne yow ba nga ne commencé moo la commencé la ngay ñëw itali di dal ci moom bërki démb defal naa ko gisee fermé moom ci Torino matugul trois mois ñëpp waa Torino yi toog te booba ba muy ñëw man damaa nekkoon ci yitte man damay liggéey vingt quatre heures sur vingt quatre it la lavoro tutti journée ke lavoro noo co tempo mooy lan hmm. man awma temps man damay liggéey rek ca foofu te ñoom loolu ñëpp loolu lan ma xame mu woo ma mu mañ ko wuyu mu woo ma ma sonn lool ma jekk ba saag ma wuyu amet mu ne ma yow da dootuma la wooti comme noonu muy waxe hmm. nga nekk sama grand ma ñëw ci dëkk bi war a def suba spectacle te waxoo ci dara ma ne ko barke Sëriñ Bamba dana fees ci barkeb Seexul Xaddim may ma rek maa ngi ñëw damay nopp lu tuuti rek ñëw. d'accord su ma ñëwee. Mhm. ñu def bës bi ñu def bës bi ñu tëgg ba pare àdduna bépp toog mu yëkkati sax di ma jox ma ne ko man maa la war a jox xanaa ànd naa ak moom ak jàmm de. Mhm. weeru koor wii daa jot rek ma toog nii ak sama soxna ba si ak ma ne xaaral ma tooñ amat tudd jëm koo laaj na xam naa ne daal léegi ma jekk ba si ak ma ne ko amet mu ne maa ma ne ko man de sukkurus koor laay laaj comme dama fee yàgg. toogaat déggaatuma ko may pour kaf rek quoi ma toogaat ak sama jabar rek ma ne ko xaaral ma tooñaat Ameth Thiou mhm. daal ne waat kar Ameth wuyu ma daat koy yónnee message ne ko Ameth Thiou de man fi ma jaar ak su suukaru koor mhm. man de bi léegi la ma man booba bu may wax ak moom mhm. dafa mel ne yàlla dafa àtte ma wax ak moom mu ne ma fàllu sekk ma ne waaw mu ne ma xaalisu jàmbur moom moo ma wax loolu de kenn du ci xulóog nit ma ne ko dëgg la kay waaye nag ba ma ànd ak yow depuis 1996 ba 2020 ba 2023 mosuma lekk sa alal tam foo ñëwee sama kër maa lay héberger sa soxna sama kër la ne man keroog ba ma amee problème di fanaan ca mbedd yi mhm. kër soxnaam moo ma héberger waat ma mi soppe Njaay ba ma amee problème yooyu ba sama këyit ndax man damaa jaaxle ndax mami soppe Njaay di soxnaam rakkam yore naa ko ba mu miin Italie ndax man ku ñëw bëgg a nekk ci yoonu baax dana la demal ca Fallou Seck. d'accord d'accord. Mhm. kon nag. bi ma Mapende wootee ma ne ko danaa wax waaye li may wax mooy ñaan jàmm ñaan salaam tey. Mhm. Ameth Thiou amul sens interdit ci Wally Seck waxal benn. bu ko neexee. chaque mhm. seconde mu gis ko. te loolu ma defal nuy am Thiou defal naa ko lu mat million de personnes te ñëpp a ngi may seetaan. Mhm. héberger joxe lekk joxe naan. d'accord tey. bu fi kii fecckat bi ñëwee nu mu tudd. Hmm. wax ma fecckat yi fi nekk tey. ak ñibbi fi hmm, Ndeye bu dee cëpp ca dëkk ba. Hmm. danaan ma carte téléphone xalifa xaw ma fi kenn yàlla a fi xam. d'accord. ma daal di jël teg sama wet ba ba nga ñibbi ki ci topp nu mu tudd. borom noir ba jamaa noir. danaan jole danaan ma carte téléphone ne ma ñëw naa ma ne ko jëlal taxi fekk ma fi ma ne. mu ñëw toog sama kër. Mhm. ba jëkkëram bu bu jëkkëram di liggéey. danaan ko foo nekk mu ne ko ci fàllu mu ne ko sama xel dal na. très bien bu ma wàccee rek danaa la jël si kër yow toogal jël sa temps ma koy jox lekk di jox naan est que bu ma ñëwee ci dëkk bi danan ma woo. est-ce que ñoo ñëpp danam kenn du ci woo. Mhm. orchestre Waly Seck li ma ci man dafa bari. tey fu nekk ci àdduna bu Waly Seck gee sore gis ma mais xam nga lu tax. coon mhm. sekk mu yàgg ma muy sama xarit. di sama mag bëgg ma ndax mm-hmm. xam nga lu tax. Mm-hmm. dafa am benn jour ma koy ma koy boole ak Wally. Mm-hmm. comme ni ma koy boole li may boole ma ñëw di ko wax mooy bi mujjee gisante. ajjuma la man altine laa dellu. ca lan mujjee gisee. mu ne mais mais mais Fallou Seck ma ne ko waaw. luy wax léegi jeex na orchestre yëpp laa tëgg. yaay fecc clip yëpp. ma ne ko non man altine laay dem mu ne ma waxuma demal boo demee ma daggal la bi a ñëw mu nga feccal ma lépp. ñii ñëpp laa tëgg alin wax ma limal ma Yves wax ma ñëpp. man maa yóbbu amethu ndar mu tëgg mu tëgg xale bu la sutul du la may kër non mu mu tëgg xale laa. Mm-hmm. ca Aliou gi ca ndar ndar. Abdou Guité Seck Abdou mm-hmm. man maa ko yóbbu ca Massané ca Issat ba man maa leen yóbbu ci sama oto man maa leen yóbbu ci garab gu la sutul du la may kër ci Yves yooyu dañ fa daan rek man sama askan bëgguñu fecc. man bu ma naan jël Wally Seck di ko yóbbu ci samay waa waa askan. dañ naan ma nga topp bàyyi liggéeyam ba topp ñii. te boobu ba léegi man tooguma ci téléphone lii ma ja wax ak ci yow te Wally ba ma ànd ak moom loolu te taxul ma toog ci bu ma soxlaa damay dem ba ca moom wax ko. kon jàpp nga ne Ameth li mu wax yëpp dafa waroon a dem. ci wàllu déggoo man li ma la wax man maag maa maag moom li ñu jàkkaarloo te loolu matul deux deux te man ba ma naan ba ma waxee loolu moom. Mhm. ne ma kilifa nga am yi nga xam ne doo ko yónnee ci ay message man ak yow ndax yaay sama mag mais xam nga wax ma loolu muy réalité ma ne ah kon li mu wax dëgg la xam nga lu ma def. Mm-hmm. ne ko kamaj yónnee ko ay sëñ Fallou mooy bu ma gisanteeg yow dana waxtaane may fexe na ba ma wax ko ma ma bëri mais moom sama rakk la sama xarit la. d'accord waaye defal naa ko lii. Mm. defal naa Thione Seck lii defal naa Wally Seck lii te taxul ma toog ci tele yi di wax est-ce que xamoon nga ko yow. déedéet. mais mm-hmm. ñi ñëpp a ngi fi. am na benn jour bi nga xam ne Ramadan gépp a fa nekk. Thione Seck war a ñàkk 20 millions CFA wala 30 millions xam nga lu ko waral. Hmm. billet yi 3 heures de temps moo ci des. amuñu fu nu jaar pour dem aéroport hmm. laaj ma nu ma def sama xel. Hmm. mu ne ma carte téléphone ne ma man da dem Thione Seck laax de. ma ñëw ci otel bi fekk ko fa waaye léegi taxaw. foofu ci Touré waaye ñëpp a ngi orchestre bi moo fi nekkoon tey amul ku ci manqué ñëpp a ngi toog. man li may wax nii waquli aqwalaw kaana ma wallahi alazim wa rabbul kaabatil musarafati bu dee damay wax ak finta man lavoro io lavoro no legal cuula annassuno immigrati sapete queste cose su sono una persona che lavoro mooy damay liggéey rek 32 ans maa ngi liggéey commune mhm. xamuluy commune pëlis yi dëkk ba mhm. di liggéey di di leen fay ay task man awma lu may mais du ma legal kuula na suuna du ma waxal kenn yàllaa ngi fi tey nekkum fi bi mu paree Thione Seck ne ma lëng ma ne ma man de damaa jaaxle 3 heures de temps moon dese suñu billet yëpp te mun bu liyee 30 millions danañ ko perte. Mhm. ma ne ko lu tax loolu mu ne ma xam nga lu tax euh, promoteur ba dem na. Hmm. te man awma fi lu dul yow. ah te léegi bagage yi bari na te nit ñi bari nan léegi ban action laa mën a def pour ñoom ñëpp ñu dem aéroport dem Milan ma dem ci ak tubaab. ma ne ko ti prego posso dirti una cosa importantissima hmm. ndax man ngaa wax ma wax la benn affaire bu importance mu ne ma waxal ma dégg hmm. xam nga kaar comme kaar yi yóbbu nit ñi comme mu war a PCS bu war a taxaw fii taxaw fii taxaw fii xam nga ne hmm. kooku amoo pour du yóbbu groupe ma ne ko ñii questa persona si perde questi biglietti persona venti mila euro fammi un piacere rek par favore ciudi lokki un giorno ci tënk rek ci olof waaw mooy benn jour xëy na ma fay la ko xam naa sax mënuma laa fay mais dimbali ma ngir jëmmi Serigne Saliou comme noonu laa ko waxee. Mhm. préga seen seen seen diyo yi. Mhm. ne ko nga jëlal ma sa kaar bi xam nga kaaru moom moomul kaar bi ma dugal ci RTS bépp ngir yàlla ñu ngi dem station ba ndax ñoom ñu mën a dem tey. Mhm. sinon rek man kii dana ñàkk te fii mënatuñu fee fanaan. d'accord loolu de xanaa def naa dara waat. dëgg la kaar ba arrière ñoom ñëpp dugg ci orchestre bii tey laa wax. dëgg la dëgg la. mu nga ca ba jaana nga ca dëgg. kaar bi di daw ma jël sama oto man sama oto man def ci orchestre bi guitare yaag yooyu takk ko ca kaw loolu kenn du ko def Italie ma takk ko ca kaw jiital jiital kaar bi yépp di nit ku ñuul ñoom ñu départ borom kaar bi ba ñu taxaw fenn ba station waal yi moo jéggi moo jéggi orchestre bépp ñëw ne papa kañ la ñuy defal Fallou Seck dara boobaak léegi mën na ay sept ans wala huit ans non est-ce que mas naa toog ci wax ko dëgg la Seck macha allah te lii may wax nii de wallaahi azim dëgg la dëgg la dëgg la Seck mais man bu fekkee ne mm. damaa nekk ak sama doom nekk ak sama xarit ñuy nekk di liggéey lu mën a dem du ma dem ci internet wala lii te loolu sax du buzz d'accord jërëjëf loolu du wax jërëjëf yaa ngi dégg li ma la mm. ay te loolu sax du wax lan la wax lan la wax mm. waxul dara lan la am Ahmed wax kontaanuma ci waali. kontaanuma ci waali génn na daal di xamle ni yàqu. waa yow léegi waa léegi waa léegi man mi nga xam ne topp naa ko en 1981 ba tey jii te man sama tànk duggul waaye tey jii am na lu ma tey bi mu jotee. Mhm. waali Seck dénk na ma li nga xam ne bëgg naa koo téye ak sama ñaari loxo téye ko bu baax ba barke Rasulullahi bu ko gisee kontaan mhm. mais boobu ba léegi tey ji mhm. bu orchestre bi ñëwee bii ñu mujjee ñëw. xama ñaata laa dawal. cent kilomètres pour dem fekkee Waly seen bu mujj bi ameta nga ca. d'accord 3500. laa jël ànd ak sama nawle tafaaj ñu dugg ci oto bi ma dawal ba egsi ca Barcelone ba Waly Seck teg ma bët ma teg ko bët ñoom bu ñu bëggee lekk orchestre boobu yépp ku ci bëgg a lekk pap ku ci bëgg a lekk may jiital ma yóbbu la hmm. nga lekk ba suur naan ba màndi est-ce que ñoom danañ ma woo est am naa lu ma neex damaa toog di ko wax fu ñu bëgg a dem Fallou Seck nii léeg ma woo samay géer ñu toog ñoom ñëpp du ci kenn ku ci yëkkat téléphone na ma Fallou Seck na nga def hmm. Amady Badiane maa ko jàngal li ma lay wax nii maa ngi ko ko defal di dëgg. Mm-hmm. man am na jour mbay ma bëgg a yëg ma yëg kaw si mu téye ma man te damaa mën a animé te duma ma yàq seen mm-hmm. waaye taxul ma dem wax ko waali. dëgg la déggoo ma ne léeg damay dem wax ak yaayam mu toog ma wax ko li ma bëgg lépp. d'accord Seck mu jekk ba saag mu ne ma. Mm-hmm. waa booy ñibbi tee nga faa jaar. su ma jaaree ca waali man dama koy lii ba du ma wax la ma waxoon yaayam. ba ko bëggoon wax waaye te du ma dem ci kurnaar jërëjëf Seck te bu jeexee bu ma ah. ñëwee vacance maa toj xanaa caaree xanaa seetaan nga ko. maa toj Louga maa toj Mbour maay borom écarté yi. la te maa ngi def spectacle bu war di. Mm. kon na xanaa kon war man maa war a gën a jooy te jooy ma damaa bëgg bu nit amee problème ak diit ci kàttanu yàlla ak yonent bi ngeen di liggéey jëru muy dem ci média. bu ñaanee jàmm ndax loolu. Mm. jàmm ci la lépp xaj. dëgg la yéen a ngi liggéey te bu coow amee rek ñi leen di déglu ñoom demuñu fenn ña nga toog di déglu. dëgg te te liñ dugal ci média bi dootul dañ. te histoire la bu dul fay. dëgg la kon nag maa ngi ñaan jàmm. di ñaan salaam di wax ne moom. Mm-hmm. doomam la. rakkam la mm-hmm. xaritam la mm-hmm. bu amee lu ko naqari bu mu toog ci benn média di ko wax na tëf nii tël buntu ba dem dóor ko xeex ak moom mbëkkanteeg moom wax ko li mu bëgg mu génn dem mu jeex jeex jërëjëf man bi moom bu amee li ma naqari ci boom dama ne la moom fa la tax soxna sama kër soxnaa moom ay berger waat. dëgg la Seck. te loolu yëpp def naa ko ci Ramadan. macha allah jërëjëf. te ba ñuy ñëw ba ba léegi mosuma xaddi dama ne la du fu nu maa nga ca ñoom fu nu geesu 3500 kilomètres ku mhm. di tëgg te dem. te demoo fa dëgg dama ne la te dama ne ba du ma ko gis. waaw kay daan ànd bu ma daan ànd am na ñu nekk ci orchestre bi nga xam ne. Mhm. dañ ma tey koy àndal ndax ñoom miinuñu Paris. ma ne ko tey Wally lay àndal ñu bëri tëdd jërëjëf sekk jërëjëf jërëjëf euh, yaakaar naa kàddu yi leer na Papa Fallou sekk ñu ngi lay gërëmaat bu baax a baax. jaadu woon na nga yëkkati si kàddu wax ak xale yi. kàddu yi waaw man nag leen wax xam ñun dañoo bi tey jii bokkut ak bu njëkk ba. Mm-hmm. ndax bu njëkk ba tey da ngay génn fii def lii jóge fii def lii jëf lii lépp nekk benn. ñëpp àndandoo nekk benn ñëpp jàmm jàmm jàmbandoo mm-hmm. mais tey xiiroo ŋaayo bi moo bari ci dëkk bi te xiiroo ak ŋaayoo lu mu lal du ko lii dinañ laboraare te bàyyi commenté bi. jërëjëf Seck mooy ñu liggéey. Mhm. te ba wax ji te bàyyi wax ji jërëjëf. di ñaan jàmm. di ñaan salaam. fii di nuyu waa mbokk jos diaspora bépp namuma dara maa ngi fii toog bëgg rek ngeen am jàmm. di seetaan émission yi. di seetaan lii bu ma neexoon tey ñëw maa leen yéen ñëpp xam ngeen ne liggéeykat laa. waaye nag mhm. moo toogee fii rek dara sama doom sama xarit. Waly Seck mhm. dama koy ñaanal jàmm. di ko ñaanal salaam. di ko wax moo xam lu mu bëgg man daal li ma koy wax no wéedo no sento no parle mooy bul xool mm. bul gis bul dégg jërëjëf Seck ok